ñu wéy di leen fàttali xam ngeen ne baaxoon nañu ànd ak ci xabaar yi ñëw bitim réew seenam technologie ki njàppandaruk soxna maam jaara bësale yi di yëngu ci wàllum médecine traditionnelle seen wax seen appareil anal kantoom bu xarañ bi nga xam ne junni rek ngay daggee ticket sa ci ko appareil bi lépp luy wéy yaram sa tànk ba soof mu génn rek tu mu ngi noppee nag fajal la ko mu bokk nag yéen i faj jabet asthme fibrome kyste prostate règle douloureuse hépatique rhumatisme trouble digestif nerf sciatique impuissance hémorroïde waaye itam seen fauteuil massage bi nga xam ne daal xarañ na lool baax na lool ña fay dem itam wax nañu ko nañu daal am na sutura da nga ñëw toog mbësal la sa aw yaram képp ku yittewoo lu mu bëgg def consultation ngir xam wéy di nekk ci yaramam numéro baa ngo 77 336 33 65 wala 66 391 17 36 ngeen mën di nekk ci euh, Sénégal muy ci Touba Iliport ca Dakar Ngor Oudezel Madi ca Mbour Carrefour Saly ca Saint-Louis ak ca Ziguinchor ca Kaolack wara bi nga xam ne kon seen seen am na fa fii ñoo man di nekk rek man ngeen a jokkoo sama maam Jaara Buso ci numéro boobu ma jox leen hamdan liman yafalu kulla ma araada bi qawlihi kun fa yakunu fil murad inondation dévastatrice en Espagne cinquante et un morts Valence ñi ngi ci xabaari ñeel bitim réew auditeurs yi Mouhalim info ca Espagne région bi di Valence ay inondation yu grave moo fa am jur ay bakkan yu bari yoo xam ne kon faatoo gum nañu fa gàtt gàtt jàpp leen cinquante et personnes juróom fukk ak benn ci ay nit faatoo gum nañu ca Espagne te région bi di euh, Valence la ko war nag moo di inondation yu taratar yoo xam ne am na fa jur sax école yi nekk foofee ko ñaar di koy tëj armee bi ñaar di koy mobiliser ngir nag ñu intervenir ci yenn son yi ngir dimbali ñi nga xam ne kon ñoo daal di loru ci inondation yooyu buñ sukkandikoo nag ci waa météo ñoom sax ne ñu taw yii nga xam ne moo am ba jur inondation yi foofee ci Espagne man naa wéy gën jaa yeex dana dem kon ba ci alxamis fanweeri fan ak benn ci weeru octobre kon muy suba ay kon inondation yu tar moo gane si Espagne comme ni mu fëse woon fi nga xam ne kon moo di ca euh, France fa ni kon ma nga daal kon laal réewum Espagne policier ñu jàll ci conflit bi dox ci diggante Israël ak waa Hamas ak Hezbollah ginnaaw ba ñu falee teg ko ci bopp kuréel gii di xisbullah nahim xoosim israil tëkku nañu ko nee ñu kon mooy prochain ki ñu war a faataat ci waa xisbullah nee ñu daal ak faatoom moom wala bokk nomination yom ci boppu xisbullah du diire kon lu may daal ay ay waxtu rek maanaam daal duutu yàggati daa ñu ko faat comme ni faatee ña ko jiitu woon loolu la waa israil kon daal di ah, xamle ni daal kon moom daal fi na ne nii kon mooy seenub cible te daañu ko ah, faat comme nañ fi ñu jaar ak ay ña njëkk rek waa eh, ñi nga xam ne kon ministre de la défense itam daal di xam le ne moom Yoav Gallant nee na quatre-vingt pour cent ci capacité militaire bu Hizbullah jamono ji kon yàq nañu ko loolu daal di kon xam xamle ca fi nga xam ne moo di Hamas jamono ji toll ci cent onze personnes ñi ngi seen ay loxo waa Israël ñoo ko daal di xam le mi ngi daal ñi nga xam ne kon ñu otage yi fi ci benn gàtt-gàtt ñi ngi ci loxoy waa Hamas ñu wéy di leen eh, téye ñoom nag dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom la waa Hamas ñoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom la waa Hamas jàppoon keroog bi nga xam ne ñi ngi attaqué kon fi nga xam ne moo di Israël la 7 octobre gi ñu ah, génn Espagne jël dogal daal di kon dakkal ab contrat armement boo xam ne daf ko seqoon ak waa Israël am na ay armes yu mu waroon a kon jaay waa Israël waaye kon daal na koy annulé ñoom waa Espagne nag dañoo bokk gis-gis ak waa France gi jàpp ne kon dañoo war a dakkal di jaay ñi nga xam ne waa Israël ay armes ndax armes yi ñu koy jaay ci def kon ñaawteef yu ñuy def. kon benn contrat boo xam ne daal contrat d'achat de munition la woon boo xam ne dañ ko seqoon ak benn société israélien kon waa waa Espagne dakkal nañu ko daal duñu ko duñu ko jëmmal loolu bokk kon ci li ñu jàpp mooy kon fas yéene dakkal di jox waa Israël ay armes ngir di ko jëfandikoo di def ñaawte fi mu def ca bande Gaza ak tam ca ah, Liban nga xam ne Israël mi ngi wéy fa faat ay bakkan mu li ñu fanweeri fan ci weeru octobre ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wala fekki gàmmu wéy di leen siibural bàyyi lay xew fekk Tamba muy procès bu ñeel Bougane Gueye Dany dig leen dëggee xabaar guddi gi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah seen agence voyage Touba Darul Khoudoss ubbil nañu leen place bu mucc ay fii ci Mbour encare magasin Talla li ci dàqati nag mooy mën ngeen faa daggee seen assurance ak billet avion ci bépp destination vol spécial ngeen di fa fekk lépp lu aju ci wàllu multi service muy yónnee wala jot xaalis ci biir réew mi ak bitim réew ci anam gu gaaw te wér lool da ngeen a yittewoo photo mini photocopie impression yu leer nañ carte visite carte membre yépp jàpp ni na fii ci seen agence voyage Touba Daarul Xuddus fekk leen nu fii ci Mbour oncat magasin Talla wala ngeen woonu ci 77 433 08 51 wala 76 285 43 52 agence de voyage Touba Daarul Xuddus ànd ak multi service bu mucc ayib yaru nañ yow yiw yéwén mën na liggéey ku fa ñëw yit ñu faj sa aaju ci teggiin wér na wóor na gaaw na